Adji Sarr da koo tuumal affaire de viol ñu dem woote oh. tribunal ah Adji ah. Sarr def ay test test yi mm-hmm. wane na am na ko bàyyi mànn yu te ba mu fay dem moom moom kese àndoon te ñaari góor a fa nekkoon Ousmane Sonko ak jëkkëru Ndeye Khady Ndiaye léegi ñu woolu ko pour mu def test ADN mu ne moom du def test ADN maanaam moom nanguwul wujji justice te nanguwul dem hôpital tamit pour ñu defal ko test Adji Sarr moom def na li mu waroon a def ci côté léegi nag mu créé situation bu bëri tel moom li mu koy faje ah toujours mooy kaay leen ñu xeex génn leen dan maa bëgg a faagaagal nan nga jàngatee situation boobu. waaw xam nga affaire sexe dafa xaw a doy waar. waaw. man du ma gynécologue du ma gyné du ma gynéco du ma césarienne du ma opéré affaire sexe mënu ma ci wax lu baax. waaw mënu ma ce wax lenn mais affaire réew mi laay wax. waaw affaire ñëwal kon ci affaire réew mi. muy Sarr ak Sonko. waaw. ñaari doomu sénégalais lañ. waaw. ci kenn laay njëkke muy Ousmane Sonko. waaw bu la àddina bëggee réew bëgg la àddina bépp bëgg la xale yëpp bëgg la ah dafa am nooy doxee. yow boo wootee boo wootee xeex ñëppay génn xeex. waaw soo wootee tëgg ay bool ñëppay génn tëgg ay bool. soo wootee ne suba kaa leen togg ceebu jën kër gu ne nañ togg ceebu jën ci mim réew ñëppay togg ceebu jën. yow yow mi di leader. yow yaay génn def discours ne kaay ñu woote jàmm parce que jàmm moo baax ci réew tey ak ak lu mu mënti doon ci àdduna Macky Sall la mooy président am. waaw ak lu lu mu mënti boo xoon ñëpp tëdd ñëpp tëdd parce que ñun ñëpp mooy sunu njiit. dëgg la laa condamné muy lan mu ñun suñu jeunesse xale yi toll ni ñun xale yi mel ni ñun xale yi dëkk bi dëkku xale la xale ko yor suñu papa yi seen wàllu woy na ñun ñun ko war a yor mais yor bi du ay xeex du sànnante paaka du jamante paaka parce que Sonko bii di leen xeexloo mi ngi tëdd këram bu dee Macky Sall gi leen ngi tëdd këram ku tege gi tëdd sa kër. waaw mosoo xeex na day xeex. waaw mosoo gi doomu Sonko yore xeex na day xeex. léegi nag lenn bu ci amee nga xam ne moom moom la xale yi bëgg moo moo war a moo war a yore moo war a war yor loo xam ne ah dëkk bi kat dëkku jàmbur la dëkk Macky Sall la. amaana ne ko groupe président Macky Sall la fi yàlla teg Macky Sall moo fi nekk ku ne am na droit fo ku ne am na droit far fi la neex ku ne am na droit wax li neex ku ne am na droit jëf li la neex ku nekk ka nga far mais ni ñu koy faree ñu faree ko personnalité faree ko fulla faree ko diiñ faree ko jom Adamo xale yaa ngi dee rek. waaw nit ñaa ngi dee te moom doomam ji ngi di soxoy bu Sonko euh, mardi bi passé ci procès bi la koy daggal bee ba jël tab Portugal instant bi ma Portugal. moo moo tax xale yi ndaw yi war a yeewu. te ñoom ñi xeex yëpp amuñu quarante amuñu passeport pour génne réew mi day gën a sonn te amul kenn kenn kuy xeex ba Macky Sall ñëw seet ci la wala Sonko ñoo seet ci la du kenn Adamo lan moo gën a bon ci àddina nga nekk xale bu ndaw ndaw nga nekk yow nga nekk cas social juddoo ci fayin bu ñàkk nga ñàkk di xeexal koo xam ne wala nga xeexal ñoo xam ne tey xeex bi du xeexu diine xeex bi du xeexu alxuraan xeex bi du du du xeexu jàkka xeexu sa bakkan rek lañ ko teg seen bakkan tey ku ci nekk président tey barki salaatu al nabi bu buñ demee deux ans bu soo ñu defaan la lii waaw loolu de dëgg la te ku ci te ku ci dee aadama munoo fexe fexe fexe fexe fexe ba ba yàlla du la làkk munoo fexe ba ba doonam safara loolu mënut a ñàkk moom ndax lii lii nekkul jixaad li xeexu àdduna la te en xeexu sexe la xeexu sexe munoo ci am barke munoo ci am lu neex munoo ci am loo xam ne neex na diine parce que xeexu sexe la du xeexu diine du xeexu alxuraan du xeexu lenn xeex koo xam ne sa baba nekkul nguur sa yaay nekkul nguur xoole ku ci jàpp sa àdduna moo yàqu sa yaay sa moo yàqu boo nekkee benn doom yow nga nekk benn doomu aadama sa yaay yaakaar na nga ne nga xeexal sa réew xoolal sama xarit bi sama xarit bi ah, xool sama xarit bi yàq awraam ah, ah, bi yàqu ni aadamo man woo naa di la nettali awra awra bi xam nga cee ketal nga ne ma Pawlish xale buy xeex ba yàq sa awra du ma la bu nekkoon ko feebar hôpital du ma ko yow loolu a wax ne xarit bi awraam bi yàqu na pour nga dimbale ko nga ko ba ma ko waxee ma ne la du ma ker ci nga ne ma dëgg la de mais pour lan moo lay déranger yow ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko ah. warul di jël jeunesse bi tamit di leen dajale di leen xeex loolu naa leen génn leen xeex Pawlish Mbaye génn leen rayante ñëwal ci lii waaye nga bàyyi say fu lii discours gars yi da dafa war a sérieux mais nag maa waaw waaw mais dafa war a sérieux waaw allez vas-y répète Sonko ak lu mu mën a xew warul woo ay nit naan leen génn leen ma def carnaval de la liberté ñu jaar fee xeex jël ay nit jaar fële xeex jël ay nit léegi nag pour pour borom réew mi sécuriser réew mais c'est normal ñu jël Ousmane Sonko yóbbu ko këram kenn defu ko lu métti nit nit bu amee tur su wootee añ ñëpp dem añi su wootee xëdd ñëpp dem xëddi su wootee carnaval am na droit wootee carnaval mais ah, mais moom ni mu moom fi mu toll ak ni mel war waru génn ci dëkk naan day def carnaval. waaw te amul autorisation. bu dee amu ko waru koo def. amul autorisation. xam nga kenn bañul mu def euh, li nga xam ne moom mooy carnaval de la liberté mais article quatre-vingt-seize procédure code pénal daf ne képp kuy créer boucan wala di def ay embouteillage ci yoon bi tey jii Pawlish bay boo feebaroon ñu war laa dugal ci ambulance nga war a dem boo fa fekkee wala ay ay da ngay dee da ngay dee da ngay dee da ngay dee da ngay dee ki ki ki woote carnaval boobu réew mi da da ngay dee waaw da ngay dee de loolu la def waa léegi waaw mais moom nag bu ko yàlla jiitalee na xam ne ay ndaw yi dañ koo bëgg mu toog këram rek la jàpp ñaamuram ba la première ñu xool lu ñuy def bu dee dañ ko àtte ci dëgg ñu àtte ko bu dee dañ koo àtte loo xam ne du yoon ñu xam ne du lu yoon mais le premier yàggul moom mii mooy jiitub réew te nit ñi te te moom dafa am benn pex dafa am benn benn benn benn benn fubu bu ko suñu borom may moo bayre ci àddina bula yàlla mayee bayre bula yàlla mayee boo wax loo nit ñu def ko kon am na yu baree bari ci àddina ah. nguur jaru yenn yi ah. xale yaa ngi aadamo xale yaa ngi dee rek aadamo aadamo nit ñaa ngi normal ñaa ngi dee normal xale yaa ngi dee kon weñ te boroomi fital du xeex boroomi xeer aadamo ni ñaa ngi dee normal xoolal semi ci mbedd boo leen rombee aadamo yow boo nekkoon Dakar da jooy da jooy rek waaw ah, dëgg la de dama dama la gis léegi nga def ay discours léegi ma ma ma ma ma téye woon ko dencoon ko mais damaa bëgg ñu déglu loolu discours yooyu tuuti après ñëwaat ci laaj parce que am importance. dama laa gisoon léegi nga def benn sortie damaa bëggoon ñu déglu sortie bi bala ñoo ñëwaat ci affaire yi. ah allo. da waaw dama laa gisoon nga def benn sortie dama bëggoon ñu tegal gaa yi sortie yi ñu déglu sortie yi bala ñoo ñëwaat ci question yi ñu wan ne Pawlish Mbaye li mu wax tey nii moom la répété waat la même chose la waxaat. Uh-huh. aca gaa yi ñu déglu alaaji Pawlish Mbaye mu sell mi li mu waxoon xaw ma li fi bëriwul ay kër la xaw ma ma li fi amul ay kër yu bëri la xaw ma mais yow dafa bëgg dëkk bu dëgg neexee yàlla xam nga man man ma jot politique mais damay wax li ma xam ak ak li ma gis ak li ma fekki ñun ay ndaw lañ ay xale lañ dëkk baa ngi yàqu te dëkk bi dëkk bi da gën a yàqu ñetti at coolu sexe na koo yàq coolu na koo yàq ci ñetti at ñetti xam nga man sax yàlla dafa ne du ma gynécologue duma ma gynéco du ma césarienne xaw ma dray hôpital xaw ma ki nit koy accouché xaw ma bay wax ci affaire sexe parce que xaw ma ci lu bari mais am naa du droit wax ni dëkk bi dina tàkk te moom mi ngi koy taal taal lan moo gën a nekk noobul nga jóge nga jigéen soor taala soor nak ñëw ba sa kër jàpp sa njàmbur mais boo wootee ñëpp màbb te xale yi dañ koo bëgg te bu la bu la xale yi bëggee amul doomam gisoo ko mu dem bokk ci COVA bi ay rakki jabar boo ko bokk ci COVA bi ay rakki papaam boo ko bokk ci COVA bi ay tontom bokkuñu ci COVA mu soog ñu ne famille Ousmane Sonko moo yore xeet di sànni mu soog famille Ousmane Sonko gi tàkk ay ñoo xam ne ay cas social lañ ñoo xam ne amuñu seen kër yi boobu bu ngelaw ëppee mu daanu ñi ñàkk te ñi koy xeexal amuñu carte électeur ñi xeex ñi xeex su ko amuñu carte électeur te intelligent bi intelligent duñ toj bitik fu am or lañuy toj foom téléphone foom Auchan ay sàcc lañ sàcc mën ta weesu nga romb bi di ko pël yi romb dem Auchan Auchan lépp fa am am na ba am bi nga bëgg koo yàq bëgg koo yàqee suñu dëkk na Auchan ay Sénégal yu fay liggéey am na ñoo xam ne bàyyi nañ dootuñu liggéey ci àddinaam parce que am na fu ñu ci àdduna bi da dimbali xale yi nañ delloo ci xel ci yàlla ñi ngeen di te ñi ngi tëdd seeni i kawlal di raay seen biir di waxtaan bébé comment vas ma tee bébé eh, defal li mu gën a bëgg ay ah, bébé s'il te plaît wutal dugub bi defal ma beñe dugub ay beñe dugub wutal beñe dugub àdduna nit boo nekkee ci àddina da ngay da ngay intelligent ñun xale yi xale xale du xeex ak xale du xeex ak nguur am na ñuy xeex état yi yëpp ñu bari am na ñu nekk bi ci billaay ñu ñoo yore société yi bu ñu xeexee état mukk parce que état moo yor ci lépp ci àdduna. lan ngay ne jàpp ne manifestation yi ak ah, ku ci dee bu dee doo dem safara fi daw si yàlla bu ma gisante ak rasulillah yawmal xiyaam. waaw léegi mi ngi noonu pour ñu bañ a guddal Pawlish Mbaye loolu la waxoon te foog naa ci la jaaraat léegi alaaji waaw loo doon la bàyyi nga nga nga. léegi léegi soo soo gisee wax loolu. waaw bu xam ne Macky Sall gi liggéey. waaw Macky Sall mi ngi defar réew waaw Adama Macky Sall mi ngi defar réew mi Adama xool Macky Sall xool Macky Sall ba mu ba mu ko gis mu tontu. waaw waaw mosoo gis mosoo gis Macky Sall wax. Mhm. ku ne am na droit nag fa far ay xale la ñun am na droit far fu ñu neex ku ne am na droit far fu la neex ku ne am na droit far fi la jig ku ne am na droit far yow fi la arrangé parce que nguuru Macky Sall ci la amee lépp ci la tukkee ci la suñu borom di ma suturaale am na droit far fi ma neex parce que citoyen la bu voté jotee damay jot voté. dëgg la dëgg la xoolal xoolal xoolal euh, Macky limu li def jam ñaajo waaw liggéey na de liggéey na réew de. yow lenn te damay wax lenn damay sànni Pape Modou Fall. bo Adamo li li muy liggéey li muy liggéey ci ci ci Macky Sall musuma gis kenn kuy liggéey ci moom ci Macky Sall ci àddina. dëgg la de non laaj mooy directeur mooy directeur mooy directeur de l'emploi. waaw ndaw bëri na ay jàmbaaru Macky Sall Lat Diop jàmbaar la Dodo Gueye jàmbaar la ñu bëri ay jàmbaar lanu ay liggéeykat lanu. yaa ngi comprendre waaw ñu ngi ñu ngi gisee moo xoola ku baax la ku sincère la ku bëgg Macky Sall Macky Sall amoon ñeenti ñu mel ne moom. àdduna baax àdduna neex parce que ak xale yu liggéeyul yëpp mi ngi leen wutal liggéey léegi da nga bëgg Macky Sall def mi ngi mi ngi créé ay société mi ngi créé xale yi liggéey mais xale yi ñoo bëggul liggéey xale yi ñoo bëgg ay xeex ñoo bëgg ay songo toj Auchan yi yàq Auchan te xale yi nag duñu duñu toj bitik bitik ba fuutee xale yi duñu ko toj xale yi duñ teg duñ toj fu jaay plaqué fu jaay or lañuy visé Auchan ceeb bi gisoo gisoo maire bi gisoo maire bi li dal xanaa gisoo maire maire bi lu ko dal. dëgg la de. mais Rokhaya Diop xanaa gisoo lu ko dal. gis naa ko rek ñu koy wax nii ci internet bi. xoolal maire bi dafa dugg Auchan. Mhm. jaa Auchan toj sa toj Auchan mu jaawale ay ni kenn jël ay ni kenn naan ay kon kooku dee léegi mairie foo foo ko fekk Thierno Macky danaan tous Macky rek la ñuy topp loo ko wax Thierno Macky Macky ah mi ngi almadi bi maire bi dafa jaawale boisson bi la jaawale ay ni kenn naan ay ni kenn ay ni kenn la naan adunam dafa yàqu loo la ñuy topp Macky rek euh, Macky la ñuy topp ma ni ki xool adunam yàqu na dafa am lu ma la a laaj mooy verdict bi la premier lan nga ci xaar yow ci verdict bi le premier lu ma ciy xaar waaw la laa ciy xaar man waaw Sénégal am jàmm nit ñi am jàmm. waaw lu wax nit ñi xam ni mooy loolu. waaw bu dee Sonko moo tooñ ñu ne Sonko moo tooñ bu dee Adji Sarr moo tooñ ñu xam Adji Sarr moo tooñ te Adji Sarr moom mu téye làmmiñam. waaw réglé nax nag coow lii du coowu àdduna la coowu état la ba ci ay bakkan di ci tuuru war na xam boppam xam moom mooy kan. réglé coowu état de coowu la. ñaari citoyen sénégalais la léegi ba ay bakkan di ci doot kon moom moo war a toog réglé xam ni moom mii day am jëkkër Dakar mun am jëkkër Sénégal mun am jëkkër Libi mun am jëkkër fu ne ci àdduna waaw est-ce que tamit Sonko tamit war na dànkasanteeg jigéen taxaw naan jigéen dàngin mu gën di la tontu loolu tamit faaw ñu wax ko dëgg moom dëgg rek lay mujj déggoo moom dafa am la ko suñu borom may mu nekk mu nekk kilifa uh-huh. kilifa day moota tontontu jigéen te en plus moo moom war a nekk président Sénégal waaw dàngin jigéen boo ñuy dàngin mu tontu la waaw kay noonu la demee nag moo tax ñu tontu ko léegi li jigéen jigéen booy danga dina la tontu. mais Adamo daal li ma li ma la ci mën a xam. Macky Sall gi liggéey réew mi. mi ngi liggéey réew mi defar na ko léegi nag. yow yow ah, lan moo tax ko yàq. déedéet mais ñu bëri amuñu carte électeur amuñu carte électeur xanaa xamoo ñu bëri xam lu leen yóbbaale xeex yi ñoo leen yi ñu bëri Sonko nekk président amul leen njariñ Macky Sall nekk président amul leen njariñ leen neex tooja dafa bëri ay te sàcc yi ñoo ci ëpp waaye waaye loolu bu nekkoon bu nekkoon état moo leen neex kon ko ñu kii di Ousmane Sonko xam nga lan la fi waxoon ay temps nee na moom jeunesse bi la yërëm parce que nee na moom bu jeunesse yi waruñoo xeexal benn homme politique warut a génn naan leen kaay leen xeex ñuy xeex ci koo xamante si ni dooma ma nga Canada dooma nga ma nangam comme que Sénégal moom loo wax ñu ne ñu ne ñu ne ñu Adama day wax rek mais li muy wax amul fu ma ko teg dama lay tegal yow nga déglu soo dégloo li wax ba pare ma bàyyi la yow nga sànn say kàddu noonu ngay def. nañu sànnante ay kàddu. waaw kay ñu sànni ay kàddu kon. acca lan la fi Ousmane moom lay xool déglul foo mënee ak foo amee doole demal bay demal gori demal def loo xam ne mën ngaa jàppale sa jàpp say say waajur parce que nañ ci yow demal def loo xam ne mën naa jëriñ sa askan moo gën nga ay nit di la utiliser su dee violence politique yoo xam ne seen doom ña nga Canada ña nga États-Unis ña nga feneen wala suñ su dee ñibbisi nañ ñu ngi ci ay grande société di liggéey di leen pousse ñoom ñuy dem di reyante dafa jot nit ñi xëppi bët. dégg nga bu baax. Mm-hmm. lii la soog ko wax te tey mooy woote loolu. ah man de Adama nag man daal xaw ma ko bëgg a wax lii. lii la la wax. mais ku mais ku bëgg a xam nga am réew boo ko bëggee jël polis Mbaye da ngay wax xam nga nan ngay def boo dajalee nit ñi ba nit ñi bëri àdduna bi yëpp boo woowee ñëpp déglu la da naan leen bu ma jëlee réew mi courant bii fi ma ko fekk bu doyul fii laa koy yóbbu ndox mi doyul fii laa koy yóbbu euh, euh, ceeb bi doyul fii laa koy yóbbu lii doyul fii laa koy yóbbu mais dajale nit ñi ba ñëw lan nga leen di wax dan maa bëgg a faagaagal génn leen xeex. conseil la nga dajale nit ñi amul solo ana njariñu réew mi dégguma ci discours am dara lu jariñ réew mi. lenn lenn lenn moom ci wax ji. waaw. muy aji ci wax ji leen xeex. waaw. génn leen xeex nit nit xar fa da ko wax moromu xaram asawaa nit di ko wax nitam. ku ci génn xeex da ngay génn àddina boo génne àddina sa yaay ñàkk sa papa mooy ñàkk sa famille mooy ñàkk xeex moo nekkul nit boo nekkee leader boo nekkee leader xam-xam fi nga war a jëm war a nekk président ëllëg suba génn xeex moo nekkul ay wax ci ci koo xam ne dafa war a nekk dafa war a yor président suba. waaw génn ñu woote jàmm. il faut ñu mën a il ñu mën a dégg dëgg. parce que génn ñu woote jàmm gën a neex ci àddina. waaw gis nga Sonko bu tooñee dañu koy teg ci yoon parce que tamit réew mi bàyyi Sonko moomu ko de yaayu Sonko moomu ko maamu Sonko moomu ko famille Sonko moomu ko réewum président la mu neex leen mu naqari leen président Macky Sall moo jiite ñëpp boo jalgatee loi dan lay te ci yoon yow amoo yow amoo luy wane ne am nga droit def euh, euh, euh, caravane loxo ma carnaval de la liberté nga bëggoon def far force mais état kenn du jaayante moom doole. te te Adamo. waaw Adamo. tey leen yow soo ñëwoon Sénégal. yo yow di nga jooy. waaw Adama billaay wala maire boo ci gis mu ngi jàpp kolom jàpp boppam xam nañu doom incha allah day gaañu xam nañ doom day gaañu fa force ado xam mairie suñu yaay yi dañoo jeex tàkk man daal man daal moo dul gaañu parce que xeexlu ma wutuma ku ma xeex le dew ma fenn xeex mais mairie yoo xeex baax na de xoolal xeex baax na de maanaam xeex ci lu am njariñ tey jii bu Sonko waxoon ne aado moo Pawlish Mbaye kaay ñu xeex parce que ceeb bi dafa seer ma génn xeex kaay ñu xeex parce que diwlin dafa yokk ma génn xeex kaay leen ñu xeex parce que courant bi dafa seer ma génn xeex kaay leen xeex parce que hôpital yi dafa xat dañ ko war a yaatal ma a xeex mais lan laay xeex xeex boo xam ne nii xeex ko personnel pour sa yow sa intérêt personnel bopp ah dan maa bëgg a yóbbu prison loo fa doon wut ca suite ba te palee ko fu fa loola daal yaa ko yóbbee sa bopp mais jeunesse yi xeex ñoo amul bopp affaire bi loola Pawlish moo tax moo tax moo tax xale yi léegi léegi leen dafa am Adamo leen dafa am muy xale yi xale yi ndaw yi bëgg a liggéey xale yi ndaw yi amul liggéey xëy ndaw yi xamuñu fu ñuy liggéey. waaw Papa Modou Fall. Hmm. directeur employé. tey directeur employé mi ngi jël employé lu muy joxe tey bëgg nga ko de. non non non du question ah, non Adama xam nga Adama damay wax parce que Adama damay wax dama gis ñi mu jël ñu bari ñuy liggéey. Ah, te nag lenn Macky Sall mu ubbi fa man ci man kuy nekk ci Macky Sall di ko jàppale damay wax ci yow. waaw loolu la. loolu dëgg parce que Macky Sall ah, am naa droit far fi ma neex am naa droit wax li neex mais damaa xam ne moom liggéey kan la liggéey ko ñor. acca acca développé la. dafa nekk liggéeykat dëkk Diourbel Diourbel dëkk Diourbel lu gudd gudd guddi guddi guddee wàññeeku ñibbi Diourbel. day liggéey liggéey ko ñor liggéey ko tax a ñor liggéey rek liggéey ko ñor nekk directeur bu rëy directeur l'emploi directeur bu rëy. ndaw réew mi di ci ndaw réew mi di ci liggéey léegi xale yi xeex man dinaa ko wax ne ko jimbalil xale yi gën a am liggéey mhm. Pape fal Fall muy muy ku baax a baax ku seete ci li muy liggéey ku gore ci li muy liggéey waa Diourbel xam nañ ko waa Dakar xam nañ ko muy liggéey kan normal liggéey kan xam ne tey Macky Sall ba amoon cinq yu mel na moom laat Diop. laat jàmbaar la. la. jàmbaar la laat liggéey kan la.